وسلم يا إلهي وجزينا بعد أن محمدنا المختار في القدم يا خليا يا على ما حضرنا مختار في القدم الإيجاد والخدم من مدينة الوجود البديع والإمام صلي يا إله وجزيا أمانة محمد المختار بالخدم ثم الصلاة وتسليم يفوق في الورد الأعلى كذا البال ما صليا يا إله مزيا أبدا

بألمي إذا أراد الله نشأتنا عبارة من نوره للجنة وإنه إذا أراد الله نشأتنا عبارة من نوره نورا بالعالمين محمد الله عليه وسلم محمد خير من يمشي على قدمي محمد أشرف الأعراب ولا جميع محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكلم الغالمين محمد صلى الله عليه وسلم خير المبعوث ينتبي محوى شرفا حوى مجدا محوى سودا لمال الخلق والآتي ومن أراد دخولا أن إن له أخضر وصرفا إلى استبلل بهمات يا بنتي صلى الله عليه وسلم سيحصل حاج مالك موضوعنا منين يوم ذو اسم منين منون خير زوج عجب منون سلم على سيدي شفاعته غفر الكبائر كي ينجم ما سلم على سيدي خشب شفاعته غفر الكبائر كي ينجو من النعم ah tabaraka allahu boo leen déggee loolu xam ne ah, waa kër rasulillahi amati nañ loo xam ne ni képp kuy tagg rasulillahi war nga cee participer mm-hmm. di weer wi tv bu Seydina Omar Faye bu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ko yàlla jëmale kanam yàlla na ko ci yàlla may fàttxul barki rasulillahi sallallahu alayhi ba ñëpp xaj incha allah dégg yonente la yàlla na ko ci yàlla yóbbu. amiin yàlla barke Seydina Muhammad kon leen gaa ñu bëgg yonente bi ñëw leen ci Weer Wii TV wasalaamualeykum wa rahmatullah. chaîne bii di Weer Wii TV da di seen képp ku bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag jagaleel ko suñu soppee. suñu xarit suñu doomu ndey Seydina Omar Faye bu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu Cheikhuna Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu bu Cheikh Sidil Hadji Malick si radiyallahu taala anhu bu Serigne Babacar si radiyallahu taala anhu bu Serigne Maodo si ibnu Cheikh Hadji Abdou Aziz radiyallahu taala anhu kon mbokk ñu ngi leen di wax Weer Wii TV moom mbokk di seen seen ñu leen di wax yéen ñëpp na ñëpp abonné te ngeen di aimé te ngeen di partagé vidéo yi ñu ngi leen koy ñaan ci barki Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sayyiduna Omar Faye daal Weer Wii TV ca kaw ca kanam tim ñëpp incha allahu taala